aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah à vous euh, de la presse maa ngi nuyu ñëpp di yeggali kàddu gi nga xamante ne sumay frère le secrétaire général du parti son adjoint ñoo ñoo ñoo ñoo sooke waxtaan wi nga xamante ne tey muy doit bureau politique bi jëm ci li nga xamante ni dañuy tuddee wax dëgg yàlla Euh, noot di wax rek ni sañ nañu sax ni léeboon lippoon amoon na fi daan na am ci diggante un dictateur yor réew mi nga xam ne ay sénégalais ñoo ko ko taxaw ne lu wax moo fi am li mu bëgg rek moo fi am digganteem ak kan doomu Sénégal boo xam ne fii la juddoo ci réew mi ay waajuram dëkk fii ci réew mi ay maamam nekk fii ci réew mi mu ne ndax lan damaa bëgg troisième mandat moom mu ne ko déedéet damaa bëgg nekk président en 2024 ñaari candidature yooyu moo fi am mu jaral nag ki nga xam ne xam na ni jeexal na lu nekk muy la président Macky Sall wax nañ ko léegi ci waxtu ay jamono dafa ni woon da dañu ne woon ci réew mi ñaari mandat doy na sëkk te du passé ans moom mu toog rek daal di nax sénégalais yi soppi xar kanamam ba kenn xàmmeetu ko taxaw temm nag ni moom dina am troisième candidature mu jaral ko mu jële fi Khalifa Sall mu jaral ko mu jële fi euh, euh, euh, sa Karim Wade Karim Maysa Wade mais mu jaral ko mu ne Ousmane Sonko mooy doon le troisième parce que kii su ma ko bàyyee dafa nar a jàkkaarloo mu man te xamul ne du moom lay jàkkaar lool mais moom xëy na kenn ci ñu bokk ci ñoom ndax moom du nekk du am troisième candidature mu nekk loo xam ne nag dafa metti parce que yenn saa yi dañuy féetale foo xam ne newuñu fa ku wéqu ku ku bëgg a dee di nga wéqu waaye ñun jàmm rek la ñu bëgg ci sunu réew jàmm rek la ñu bëgg ci seen sunu Sénégal gii nga xam ne nag tey du tey jii la ñu yàgg liggéeyal sunu réew dañoo liggéeyal sunu réew depuis plus de vingt ans lu ne defal nañ ko Sénégal pour bëgg Sénégal jëm ci kanam mu nag loo xam ne nag dañuy dem ba finalement dañu naan ñii dañoo bëgg xanaa éliminer yamuñu ci président Ousmane Sonko ma leen di wax ne ñun jigéenu Sénégal parce que yéen laa gën a waxal vous la jeunesse Babacar dina ci ñëw bu leen nangu ñu divertir leen bu leen nangu ñu nax leen yéen jigéeni Sénégal dama leen di woo ci dëgg dëgg gi mooy Ousmane Sonko sunu doom la Ousmane Sonko sunu rakk la Ousmane Sonko sunu mag la sunu xarit la di nit koo xam ne bëgg réew ma tax muy daj lii muy daj yépp te le dictateur lu ne wan na ko ko dàq na ko ci liggéeyam kenn waxul dañ ko nangu toog muy uti pexeem pour yor njabootam yeneen ak yeneen topp ci parce que buñ ko limee day bari ba lu weesuwul rek ci fan yii ñu jàpp ko toj otoom di ko gazé benn bi pàdduwaa la ñëw man nii fekk ma fa di ma seet ñu gaz gazé suufu otoom ma ci teg sama bët ndax lan ne ko doo fi waxe doo fi doxe Ousmane Sonko est le seul sénégalais bi nga xam ne amul benn droit ci réew mii nga xam ne lu ne defal na ko ko ma leen di woo seen euh, di attirer seen attention yéen jigéen ñi Sénégal ñu leen di nax nag ndax seeni besogne buñ ci yegsee dara rafetu ci dara baaxu ci bu leen nangu ñu leen di nax di leen nelawal ndax ñu ngi naan waaw seeni doom ñoom du ñu génn bu leen nangu ñu génnee seen doom yi ñoom ñu toog seeni bureau wala ñoom ñu làqatu seeni biir kër sañ naa taxaw ni képp ku bokk ci Pastef jamono yii lekkatul naanatul ñu ngi ci mbedd mi di ñu persécuté man ñii sama euh, euh, euh, naka lañ koy wax sama feu arrière oto dañ ko toj léegi nii dañ ma gazé keroog sama biir kër la ñu gazé ndax lan Ousmane Sonko dafa ñëw seet si ma léegi dans quel pays sommes-nous yéen jigéen ñi Sénégal di ngeen nangu loolu réew moo xam ne ki ñu yaakaar ni moo ñu mën a génn ci ndool gi ñu nekk ndax ñi ñu teg ndool gi nag seen intérêt personnel moo tax ñu ñoom ñu ne léegi dictature la ñuy indi da ngeen di nangu loolu nañu ànd lànk nañu ànd bañ réew mi liñ fi bëgg muy jàmm ak naataange nañu fexe ba képp ku ñu yaakaar ni yow la soo toogee indiwoo ko ñun ñii ñooy taxaw ne la folli nañ la te ñaari mandat la ñu wax maximum Macky Sall ñu ko wër di ànd ak ñoom yëpp amul kenn ku musuta wax wala boog ñu bëri ci ñoom wax nañ ko taxaw ne troisième mandat mënuta ne di ko wax di ree di ko wax di defee nu leen neex amul kenn ci ñoom ku taxawul ne non non non débat boobu du débat mais ñu xëy benn bés rek ni ñu naan l'appétit vient en mangeant le pouvoir rend fou ñu taxaw ni léegi ñoom dañoo bëgg am na ñu taxawee waaye nañ ko teg ci yoon Ousmane Sonko doomu jàmbur la Ousmane Sonko dafa am fu mu bokk pourquoi ñu war ko jël di ko écarter ñi ko wóolu nañ ko dénk ay seeni seeni xob keneen keneen ku war a jàkkaarloog moom ñu dénk ko ay xob waaye ni man lay doon nee nañu ko duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba wax boobu bu leeree ñu jublu ci leneen li may daanele nag mooy mon frère Birame wax na ko léegi ñii fi ñu jëm ñoom Hmm, dina doy wax de ndax ñun xam nañ fi ñu toll xam nañu ni ñu paree bu dee ci kaso yi lay doon bu leen yoboo ñu tabaxaat bu dee nag dafa am leneen ak leneen luñ ci namm ñun ba ñu taylee sunu sunu sunu euh, naka la ñuy wax ba ñu defee sunu testament dafa yàgg te du ay caaxaan barki wal kitaab du caaxaan ndax lu ñu xeexaluñu Ousmane Sonko ci jëmmam dong mais nous voulons un meilleur Sénégal nous voulons que l'avenir de nos enfants ñu am lu ñu ciy nettali lu baax ëllëg ñun ñu ko fekkeewul sax suñu njaboot yi fekkee ko muy doom muy sët ñu fekkee Sénégal boo xam ne naa lay doon est-ce que xam ngeen yéen mbokku jigéen ñi ne loolu mën naa am moom la ñuy bañ moo tax ñu koy noot di ko jaay doole ak ñi mu àndal. li ne ci suufu Sénégal mun naa dundal Sénégal ak li ànd ak moom nekk ci euh, euh, Afrique yëpp ñu ne du fi amee ndax dafa am ñu ñu ko gën a yeyoo ñun nag ñu ñuy jaay doole Sénégal jaay doole fi am te dootul dañ koy dañ koy gàttal. rongooñu baadoola di siim cërey buur jeex na doy na on parle aujourd'hui un langage différent parce que bu njëkk dañ daan waxtaan ndax mu rafet ndax ñu maslaa waaye tey jii ku ñu gis ñu xool xam ne pare nañu billaahi pare nañu Sénégal nag nekk na réew moo xam ne li ñuy xeex jëm ci mooy démocratie bu mat sëkk et nous avons un dictateur qui piétine notre démocratie sunu liberté moom la ñu bëgg ñu ne ñu du ngeen ko fi amee enough is enough we need a Sénégal with freedom we need a Sénégal with democracy and we will fight for that ngeen jéggal ñu tey suñu xol dafa dafa am fu ñu toll ndax dañ doon xaar suñu président jotuñu ko ñu bëgg nag nit ñi xam ne illaa yow mi la woon dena woon yi duñ ko nangu jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax bon man li ma bëgg wax